julli ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di ziyaara di leen nuyu ba nga xamante ni mu ngi bàyyeekoo ci suñu xol di jëm seen jëm yu tedd yooyu te mooy assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu gannaaw loolu nag ñu indi laa leen tafsir yi nga xamante ni ñu ngi leen ko amaleel fii ci koor bi waaye boo leen ko bëggee am da ngeen abonné ci seen bi nga xamante ni mooy MIK TV bu ko defee lépp lu ñu fa tàbbil incha allah ci kàttanu borom bi dangeen ko am mbokk yi saar bii di sootu tiin nag nee nga màkki yatun la woon mi ngi wàccoon màkkatal mukarama nee nañ bokkoon na ci asbaabul nuzul yi li tax mu wàcc nee nañ am na ay jullit yoo xamante ni dañoo mësoon a ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax borom bi dina àtte ñi nga xamante ni ñoo tàkkalikoo ak seen sago maanaam ànduñoo ak seen xel bi nga xamante ni wax nañ loolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla daal di koy tontu ci aaya bi wax alaysa allahu bi ahkamil xaakimin xamal ni sunu boroom kat képp kuy atte moo la dàkk atte moom sunu boroom alaysa allahu xanaa du yàlla kat bi ahkamil xaakimin moo gën a mën atte ci képp kuy atte moo ko dàkk atte bala ankay sunu boroom kat képp kuy atte moo ko gën a xarañ moo ko dàkk atte waaye balaa ñu koy xam mooy bésu yomal xiyaam ba suñu borom atte mboole mbindeef bu mbindoon di nga xam ni boroom bi subhaanahu wa moo dàkk atte ci képp kuy atte waaye mbokk yi am nañu ni tamit asbaabu nuzuli ibnu abbas moom kat moo mësoon a romb ay jullit ya nga xamante ni ay jullit yu màgget lañ woon ibnu abbas daal di wax ci xelam moom ci boppam ibnu abbas ni kat waa ndax suñu boroom subhaanahu wa dana fay ñi nga xamante ni wax dëgg yàlla daan nañ xare ngir lan ngir lislaam taxaw sa kaw waaye daan nañ xeexal lislaam ngir lan ngir lislaam yegg fu ne daan jaamu yàlla waaye tey xool leen tey ni ñu mënatuñoo jaamu yàlla jaamu yàlla bi war waaye mënatuñoo dem ca xare ya xeexal boroom bi subhaanahu wa waa ndax seen jëf yu baax yañ daan def mbaa du neen ndax borom bi subhaanahu wa taala dina leen ko fay nee na bi xamante ni mi ngi wax loolu ci xelam suñu borom subhaanahu wa taala nee nañ ci la wàcce aay bi wax summa radatnaahu asfala saafiliin ndax ñu am nañu koy firee ni kat summa radatnaahu delloo na leen asfala saafiliina ba ñu gën a màgget maanaam ñu nekk ñoo xamante ni ay jeunes lañu woon yàlla ñuy dem di dem ba mujjee màgget yàlla yóbbu yóbbu leen ci beneen étape ba nga xamante ni étape bu ràpp ràpp la mooy étape bu màgget nee nañ eh, yàlla lim ci teg mooy illa alladina amanu ni ñooñeekat te daan def lu baax daan leen fay kay illa alladina amanu wa amilu xat daan leen fay ndax ñi ngi doon def lu baax di xeexal yàlla di ko jaamu kon bu ñu demee ba màgget tamit terewul lañ daan def lépp du naax saay duñ ko mës perte kon mbokk yi loolu nee nañ moo nekkoon asbaabu nuzul yi kon ñaari version dikk na ci bu njëkk bi nee nañ dafa amoon ñu ñëw laaj yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko kat ñi nga xamante ni dañoo tàkkalikoo ak seen sago ndax borom bi subhaanahu wa taala da leen atte borom bi wàcce aay bi ni ankay waaye borom bi xam na ni leen di atte ndax borom bi lépp lu mu bind moo la gën a xam beneen version bi ci dikkaat nee na ibnu abbas moom moo doon wax meer màgget yi mu gisoon ak paa màgget yi nekkoon ay jullit nag di wax si xelam ni wax dëgg yàlla ñii ndax borom bi subhaanahu wa taala fay tey ñi ngi nii màgget mënatuma dem xare mënatuma jaam boroom bi subhaanahu wa taala kon mbokk yi ñaari version yooyu ñëw na ci asbaabu nuzul kon ñu indi tafsir bi incha allah